خادمه سيدنا ga war na noo dellu sant xayrul xadime sayxuna ahmadoon fal fil xiin waaw xadime sayxuna war na noo dellu dellu sant xayrul xadime sayyiduna ahmadun falla fil ayni dellu sant xayrul xadime sayyiduna ya baay daam ahmadoonu may la nu tànnoon mu nu yóbbal nga neelu taaru ci diine baay daam waaw la nu tànnoon mu nu yóbbal nga neelu noon mu yóbbal ganeel wu taaru ci diine la nu tanoon mu nu yóbbal ganeel ay sunu waaji jokku sant yàlla tey def yoone waaw aya ca baawa na jokk sant yàlla danu daakaas baray di sotli yoon dugg ci suuf bu dàq gàpp gàpp mi ne kasbara sot lu yóbbal te dugg ci fu dàq danu daa dox dox xëy di gontu ba dem ndar tey ku jóg war wata ak gaali sabiine ba dem dar tey ku jóg war wata ak gaali sabiine ak la ne woon dar rey dawal gi dootunu buune ñu Mbàkke bala ay sa bu seyra dawal gi maymune waaw waaw ni tasanto tasanto telo baay ade ak maymune ak ile may dana sepp góor ci bu farlo فنو خدي بدنا إلا ما دلوك سميا أبلتا جانا إدالي لامبين باجيلين إلا تبلغ جانا إدالي yaa ngi toog yaa ngi nu dendal danu dalal ta gar gi tay biin biin ake yaa ngi nu dendal dandal danu dalal ake yaa nu nandal nga feeñal yaa di mbër yaa nu tàggaleeg naan ko ne waaw feeñal yaa di mbër ake yaanu miinal ka bee di gaasi adaaya dëgg ndox meenu tàggale naan moo ne dafe ki kaasi ataaya so ndox meenu tàggale aken bileen baanik ku doon ni niw wata saab moo ara gañ gañ Seexu Bamba ku yal diine ah. ku tonni ni wa da samo wara gëm Seexu Bamba di nanu gëj gëj Seexu Bamba ku yal diine ah. Seexu Bamba ku borom jaam ñi nanu gëñ Bamba kuyal diine muru makiya wa puang ya nu kota bolen ok so Seexu Bamba Ahmad Xawsi Mbakke jërëjëf Ahmad Xawsi Mbakke jërëjëf Seexu Bamba Ahmad Xawsi Mbakke dongo نك مباك بلا هني مسكينة نك مباك بلا مسكينة نك مباك بلا مسكينة Gumba, Gumba, Gumba,

boole sunuy xol xar sunuy xol def ju di magal magal ñu ray ak noone ndaw ndaw di magal magal magal ñu ray ak noone ya sunu xibla yaa ngi fi Tuuba ak ko no ko am bu tum ci yaare keneen maa ngi ñaan ci doomu Magal ah, ah, Baye ah. Serigne Saliou Mbacké yàlla nga tàggoog Bakar waaye jóg leen Magal Serigne Bamba ca kaw jar na ko waay Magal Serigne Bamba borom ju mag yi dañ na ko ay nun du dun ci yàlla ram ju màjj doon ko aj ko aj dun siyaare keneen dun siyaare keneen sunu wirdu anu doy ci mu awadan ya sunu wirdu maka bala du doy sunu ismu laay doy anu kembe janare anu tere anu kembe janare anu tere anu kembe

أجبت قنيا نانجي قبل تيفانيا نانجي قبل أجبت قنيا لا تقول جارني أبيكو أبيكو جارني لا تقول waa bëgg bu jaar ne a bëgg bu jaar ne kon yaa soo daan mu jëmal ne ak buddu ko ni yaa soo daan mu jëmal ne sodaan sodaan Mbakke juddu ko ni yaw sodaan mu jama ak neene sodaan yaa di jantu bu jaloor di fay laa juddu ko ni yaw sodaan jama ak neene

bala ay subre ya di bayu miskin yi nanu def ndey nu nambal sa weer na gën ay weene yàlla ñu def nday bayoo gën gën yaa di bàyyi mbay di yow la nu def nday nambal sa weer na gën ay weene balla ay sombre nampal sa ween gal ay ween di baayu miskin yi yow la nu def nday anu nampal sa ween gal ay ween di baayu miskin yi yow la nu def nday balla ay sombre nampal sa ween yanu nambal sawena gan ayene yanu nambal sawena gan yanu nambal sawena gan ayene yanu nambal sawena ayene àdduna bal sawir na gën wen na gën gën ay weni weni yanu nampal sëriñ la gën ay weni weni yanu nampal sëriñ la gën say wen a gën ay weni weni yanu nampal sëriñ la gën dina say maqaama say jagle kenn mu du say karaama say jagle kenn mu kenn mënu say maqaama say jagle kenn mu ko sa karaama ak sa jéego kenn du ko seene sa maqaama ak sa jële kenn mënu ko bala kenn mënu koo kenn mënu koo xam kenn du ko seele say jagle kenn mënu koo taajul kiraam lay la xam nga ilmu diraaya xam nga yaqiin nga taajul kiraam man nga borom man nga borom mam ilmu diraaya yaqiin ak mbari diiwaan walaay da gaal wuñ la ci géew bi jigéen bi Mbakke mbëri diwaan ale wul la jigéen bi jàmbaar ja yow rekk a daane mbër ya lu nga fi diine yow rekk a daane mbër ya doo seen moroom yow rekk a daane mbër ya lu nga fi diine amoo moroom yow rekk a daane mbër ya lu nga fi diine xafu sax waaw jënum ñu rëy ñett daanoo daana daane yaa am diine yaa fi sax jënum ñu rëy ñett daanoo ta daanoo kun daana daane bakke yaa fi na turu ya weddi yàlla te xeexoo dana dore dam ke jene ya fi nadru ya di yàlla texe ko dana dore dam ke jene dana dama tuxu man di xaw si di رسول فرد أمينا يا في المطلوب مد قوس ديار ويعلم قد أمين لخديم الرسول خديمين أمددا لخديم الرسول رسول مرام بامين خديم الرسول خديمين خديم الرسول فرد أمين فرد أمين